الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكي من سنت الله سبحانه وتعالى ديكو غرم ديكو ديمانديكو ديكو جيكل سني بكار di ko ñaan mu musal ci suñu ayu bakkan ak suñu jëf yu ñaaw képp ku yàlla gindi kenn mënu koy sànq waaye képp ku mu seetaan ci màndum ba mu sànq kenn mënu koy gindi ñu ngi seede ne amul kenn ku ñu war a jaamu ci dëgg ku dul yàlla waruñu koy bokkaale kenn wala lenn ñu ngi seede ne Muhammad jaamam la yonentam la gannaaw loolu mbokk yi yàlla subhanahu wa taala mu ngi woo ñi gëm naan yéen ñi gëm na ngeen ragal yàlla dëgg-dëgg ragal sax leen ci ragal yàlla ba bu leen dee ñëwal lu dul fekk yéen a ngi nekk jullit yu jébbal seen bopp yàlla naka noonu yàlla subhanahu wa taala mu ngi woo mboolem nit ñi mu ne ee yéen nit ñi na ngeen ragal seen borom bi leen bind ci benn bakkan mu bind ci bakkan boobu soxnaam si mu wesaare ci ñoom ñaar góor ñu baree ci jigéen muy aadama xawa na ngeen ragal yàlla mi ngeen di laajante ciw turam na ngeen ko ragal ci mbokk gi dox seen diggante na ngeen xam ne fu ngeen toll yàlla mu ngi leen sapp di leen contrôler naka noonu yàlla subhanahu wa taala woo na mboolem ñi gëm ne yéen ñi gëm na ngeen ragal yàlla te ngeen di wax wax ju jub kon yàlla dana leen baaxalal seeni jëf dana leen jéggal seeni bàkkaar képp ku topp yàlla ak yonentam kooka texe na texe gu mag gannaaw loolu mbokk yi lu gën a dëgg ci lu ñuy waxtaane moom mooy téere yàlla bi subhaanahu wa taala waaye doxalin wu gën a jub wu ñuy toppandoo mooy doxalinu muhammad sallallahu alayhi wa sallam li yées ci mbir yi mooy lu ñu sos lépp lu ñu sos bidaa bépp bidaa cànkute la bépp cànkute safara la jëmee borom yàlla ñu ci yàlla musal gannaaw loolu mbokk yi relation nit mi nga xam ne jullit la diggante moom lislaam du jeexee ci rek nit ki daal di dee nit ki dee rek relation ak l'islam jeex dee naka noonu relation ak mbokki julli tamitam doo ne day dee rek relation yooyu daal di jeex dee li am mooy gannaaw bu dee l'islam yittee woona mbiram comme ni mu yittee woo mbiram bi muy dund loolu tax na it jullit yi ameel nañ ko àq ci gannaaw bi mu dee comme ni ñu ko amalee ay àq ci bi muy dund yooyu àq yu lislaam jox jullit bi ci bi mu dee ngir ñu war ko koy taxawee moom lañu xamee ci lu ñuy tuddee ahkaamul janaïs ak tey néew ak tey ay néew kon jullit bi bi muy dund ni mu amee ay àtte yu lislaam wax mu jëm ca moom bi mu deexee itam dafa am ay àtte yu jëm ci moom loolu moo tax lislaam warale ci jullit yi ay mbir yu xam ne bu ci ñenn taxawee defal ko kooku faatu dara teggee ko ñi ci des bu ca kenn taxawut nag ña ko yëgoon te man caa taxaw yëpp te defuñ ko dañuy am bàkkaar loolu la ñuy tuddee ci làkku fuqaha yi fardu kifaaya fardu kifaaya farataay dooy farata ju xam ne bu ci ñenn taxawee mu teggee ko ñu ca des farata yooyu dafa tënku ci ñeenti mbir farata yi nga xam ne ameel nañ ko jullit bi dee léegi dafa tënku ci ñeenti mbir bi ci njëkk mooy sangu ko sangu ko bu ñaareel bi mooy sàng ko sàng ko bu ñetteel bi mooy ñaanal ko te mooy jullee ko bu ñetteel bi mooy ñaanal ko te mooy lan jullee ko bu ñeenteel bi mooy sul ko rob ko ci suuf naka fekkoon nag dee li gën a bari feebar daf koy jiitu loolu tax na dinañu rafetlu ci sunu jataay bi ñu njëkk a tudd doonte ci wàllu misaal ak tënk lay doon waaye duwut ne dañu ne dañuy wax lépp waaye tënk li nga xam ne lenn ci li nga xam ne war na ci jullit bi li ko dalee ci fi mu feebaree ba bi muy faatu danañ njëkk a tënk loolu balaa ñuy yegsi ci jëmmi faatu ci boppam gannaaw faatu moom luñ koy defal la waaye li ko dalee ci feebar ba bi muy faatu foofu moom dafa mën a taxawee boppam yooyu bi ci njëkk mooy muñ muñ jullit bi feebar na muñ gërëm àtte yàlla ci moom muñ dogalu yàlla rafet njort ci boromam xam ne loolu dal ko yiw la ci moom ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa doon wax ne ajaban li amril mumin inna amrahu kullahu lahu xayr wa laysa dalika li ahadin illa li mumin in asaabathu sarraau shakar fa kaana xayran la wa in asaabathu darraau sabar fa kaana xayran la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne askay mbirum ku gëm yàlla dal moo yéeme ku gëm yàlla moom mbiram lépp yiw la ci moom moom su amee neex neex dafay sant yàlla loolu nekkal ko yiw bu fekkee lor a ko jot dafay muñ loolu nekkal ko yiw naka noonu wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jamu ne laa yamuutanna ahadukum illa wa huwa yuxsinu zanna billahi taala kenn ci yéen bu mu dee lu dul fekk mu ngi rafet njort ci yàlla kon boole la ñaar muñal rafetal njort ci yàlla ñaareel ba sopp nañ ci jullit bi feebar mu faju jëfandikoo garab yi nga xam ne dafa dagan ngir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëma waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jamu ne yàlla subhanahu wa taala wàcceewut benn jàngoro lu dul ne wàcceel na ko garab bu koy faj kon nag na ngeen di faj xadis boobu ibnu maaja ak xaakim solo nañ ko xaakim dal di ko wéral lu dul ne nag jullit bi bi muy faju du fajoo lu xaraam lu mel ne sàngara du ko faju ñii wax naa bu la nangam jotee da ngay jël ricles xaw ma wala da ngay jël risque wala nangam ñu ne dafay faj te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bañ ko ne sàngara faj mu ne sàngara ci boppam jàngoro la jàngoro mënta faj kon lépp lu ñu xaraamal ci lislaam jullit bi du ko faj ngir wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jamu ne inna allaha lam yaj'al shifaakum fi ma harrama alaykum rawahu tabarani bi isnaadin sahih yàlla subhanahu wa taala defut seenu paj ci li mu xaraamal ci yéen yàlla seenu wér la leen di faj wéral leen defut ko ci li mu leen xaraamal kon jullit bi day faju waaye du fajoo lu xaraam ñetteel ba dagan na ci jullit mu sàkku ku ko moccal mu sàkku ku ko moccal ci lan ci ay aayaay alquran ak ci ay ñaani yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci ay wax yu sell ngir wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ji mu ne laa ba'sa birruqa maa lam yakun fihi shirk rawaahu muslim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne mocc ci aayul li feet bokkaale nekku ci nga dégg ci ne kon kañ lay aay mooy bu ca bokkaale amee wa bittaali li ñuy tuddee jet moom du wér jet parce que jet li ci ëpp ay turi seytaane la borom di wax wala ay bokkaale yooyu du dagan ci jullit mu fajoo ko su ma si doon joxe benn misaal suñu aada ci réew mi dañuy wax ne kuy lekk jën yax galan ko ci putal am na lu muy wax pour loolu dëñ am na wala am lan lay wax pend saar ca ngaw ne pend saar mbindeef la wala du mbindeef moom ngay wocc li la galan kon yaa ngi bokkaale yàlla ñu ne nit ki su ragalee poson jot ko ci li muy lekk mu wax lan Xaalid ibn Walid Xaalid ibn Walid mbindeef la wala di kon lépp lu xam ne bokkaale la du dagan naka noonu lañu xamut lu muy firi du dagan kon daal baatu yonent bi sallallahu alayhi wasallam jeexal na wax ji laa ba'sa bir ruqa maa lam yakun fihi shirk kon boobu mooy mooy bii dagan jullit pañol ñeenteel bi mooy ne day araam ci jullit bi mu takk ay gàllaaj day araam ci jullit bi mu takk gàllaaj wala mu jëfandikoo ay jet ngir waxi yonente bi salallahu alayhi wa sallam ji mu wax ne man allaqa tamimatan faqad ashrak yonente bi salallahu alayhi wa sallam mu ne képp ku takk gàllaaj kooka bokkaare na xadis boobu ahmad ak xaakim ñoo ko solo xaakim wéral na juróomeel bi jaar na ci jullit bi bi mu feebaree mu boole ragal mbugalu yàlla ak yaakaar yërmande yàlla ragal mbugalum yàlla tiit ay bàkkaaram waaye nag muy yaakaar itam yërmande yàlla ak ngëneel ngir xadisu anas bi nga xam ne tirmisi ak ñu dul moom solo nañu ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dugg si woon ci benn waxambaane bu feebar benn jeune bu feebar bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëwee dafa ne jeune bi na nga def moo ne ko ah yow yonent yàlla wallahi fii ma toll maa ngi yaakaar yàlla te tiit samay bàkkaar fi ma toll maa ngi yaakaar yàlla tey tiit samay bàkkaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñaar yi nga wax du dajee ci xolub jullit ci tolluwaay bu mel na bii nga toll lu dul ne yàlla jox na ko la muy yaakaar musal na ko ci la muy ragal kon jullit bi na boole yaakaar yërmande yàlla ak ay bàkkaaram juróom-benneel bi jullit bi ak lu feebaram tar tar lu feebar bi métti métti métti daganut ci moom muy mébét dee daganut ci moom muy mébét dee waxuma laa nag di ko ñaan mébét gi rek laa wax lu ko waral ngir waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu wax ne kenn ci yéen bu mu mébét dee ngir lool bu ko jot su fekkee man ta ñàkk manu ko ñàkk a def na waxee nii na wax ne allahumma axyini maa kaanat alxayaatu xayran lii wa tawaffani ida kaanat alwafaatu xayran lii yow sama borom yàlla na nga ma fi dundal li fekk dund gën ci man na nga ma rey keroog bu dee gënee ci man soo mënta ñàkk ñaan na nga ñaan ni juróom-ñaareel bi su fekkee ne am na ay àqu jàmbur yu ko tege na joxe àq yooyu seen borom su fekkee jàppandi na ko mu joxe àq yi su ko jàppandiwut na ko dénkaane na na bàttale ngir dénkaane gi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dénkaane loolu digle gi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam digle loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa digle jullit bi war di bind bàttale jamono mu nekk kon nag dénkaane boobu warees na koo gaawee ngir yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ne maa haqqu mri'in muslim yabiitu laylatayni wa lahu shay'un yuusi fii illa wa wasiyatuhu maktubun inda aw maktubun inda rasi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne jaaduwul ci benn waay bu xam ne jullit la muy fanaan ñaari guddi fekk mu ngi am lu mu nar a bàttale ci gannaaw dee xam lu dul ne fekk ne bàttaleen boobu mu ngi ci boppam mu gegenoo Abdullah ibn Umar ibn Xattaab radiallahu anhu mu ne depuis ma dégg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax wax ji fanaanuma benn guddi fekk ne bindu ba sama dénkaane sama dénkaane toujours mu ngi man guddi gu nekk maa ngi sama dénkaane juróom-ñetteel bi war na ci jullit bi mu dénk ay mbokki jege ñaareel mu bàttale bàttale dénkaane ci ay mbokki jege ñaareel yi nga xam ne du ñu ko doon su fekkee yàlla warsagal na ko dara ci alal na tudd ci alalam lenn mu ne lii nañ ma ko joxal diw sàngam ak diw sàngam ak diw sàngam ci ñi nga xam ne ay mbokki jege ñaareel lañ amal moom jàmm amal koy teraanga ci baa ñuy miraasee ñoom du ñu bokk ci ndonam loolu lu ciy tegtal mooy wax yàlla subhanahu wa taala ji mu ne kutiba alaykum ida xadara ahadakum almawt إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين yoonal nañ ci yéen kenn ci yéen bu ko dee teewale te fekk mu bàyyi alal yoonal nañ mu def ab dénkaane jëmale ci ay waajuram ak bokki jege ñaaleem te mu def ko ci njëkk loolu àq la bu tegee ci ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla aaya bi mu ngi ci sootu baqara cent quatre-vingt dénkaane boobu nit ki sañ na dénkaane un tiers u alal alal ji buñ ko xaajee ñetti xaaj benn xaaj bi mu dénkaane ne nañ ko jox mbokkam yooyu nga xam ne duñu ko doon man na it lu ko gën a néew waaye nag daganut mu dénkaane lu ëpp un tiers la gën sax mooy na gën a néew tuuti un tiers yéen ngi fàttaliku xadis Saad bin Abi Waqaas ba mu feebare xadis baa ci Buxaari Muslim mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man damaa bëri alal te man benn doom bu jigéen rek moo ma nar a doon su fekkee dee naa sama feebar bi ndax kon sama alal du ma ko xaaj ñetti xaaj ñaari xaaj yi ma dénkaane ko pour nañ ko jox ci bunti yàlla yi bunti defar yàlla yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko déedéet mu ne kon ma xaaj alal bi ca digg ba genn wàll bi ma dénkaane ko ma bàttale ko pour nañ ko joxee ci bunt yu ma wutee tiyaab ki may doon na jël ci des yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko déedéet mu ne waaw kon ma xaaj sama alal ñetti xaaj benn xaaj bi ma joxe ko dénkaane ko ci mbokk yeeg bunt yi ñuy defalee yàlla ñaari xaaj yi bu xanaa mu des si pour dono yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko as sulusu wa sulusu kat yi un tiers bi baax na waaye un tiers bi sax bari na loolu tax ibnu abbas radiallahu anhuma di wax ne man gis naa ne nit ñi suñu manqué woon un tiers bi moo gën parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam daganal na un tiers bi waaye teg na ci kàddu mu ne waaye sax un tiers bi bari na dénkaane boobu bu ko nit ki def na ko seedeloo ñaari góor ñu màndu ci jullit bi ñaari góor ñu màndu ci jullit bi na leen ko seedeloo ne lii su ma génnee àdduna nañ ko jël ci sama alal jox ko diw ak diw wala def ko ci tabaxu jàkk wala def ko ci nangam buntu bi yiw daal su fekkee nag fa ko dee ñëwalee mu doon dénkaane ay jullit nekkuñ fa bu boobaa sañ na dénkaane ñaar ñu xam ne duguñu ay jullit ngir aaya boobu ci sootu almaida diggante li ko dalee ci cent six ba cent huit yàlla subhanahu wa taala mu ngi fay wax dénkaane yooyu nan lañu koy defee su fekkee ne nit ki dafay faatu am ñaari jullit yu mu dénkaane su amut mu dénkaane ñaar ñu dul jullit dénkaane boobu nuñ koy jottale ci seeni borom bu ngeen demee ci sootu maida ci aaya cent six ak cent ba cent huit da ngeen gis teqantal yooyu insha allah juróom-ñeenteel bi mooy dénkaane bi ñu wax pour bokki jege ñaari ñi la ñi dul doon amma bokki jege ñaari ñii doon ak waay jur yi ñooñu moom du dagan ñu bàttale leen dara li ngeen dégg ci bopp aaya bi ma wax sànq falil waalidayni wal aqrabi falil waalidayni kooku aaya miraas moo ko man suuxal aaya miraas moo man suuxal bàttale pour waajur yi ak bokki jege ñaale yiy doon ñooñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leeral na ci ak gi nga xam ne ci la tàggoo jullit yi xutba ba mu ca def bokk na ca la mu ca wax mu ne inna allaha aata kulla zi xaqin xaqa fala wasiyata li waaris yàlla jox na borom àq bu nekk àqam kon kuy doon duñ ko bàttale dara lañ ko séddee ca cëru ndonoom mooy wàllam sañatu jëlale fukkeel bi naka fekkoon jamono bii ñuy dund ay bidaa dafa bari lool rawatina li aju ci wàllu ku dee la ci ay bidaa dafa bari lool loolu tax na jamono bi jullit bi war na bàttale ci mbiru bu dee ab néewam nuñ koy taxawu war na dénkaane ne man bu ma dee nañ may préparé ca sang ba ca sànga ba ca jullee ga ca rob ba ca mbugge ma lépp na tegee ci sunna na tegee ci sunna buñ ca def lenn ci biddaa loolu jullit tey jamono bi ñu toll jullit bu nekk war na di ko dénkaane ci mbiram ndax tegee ci sunna moo tumaranke waaye biddaa moom moo daj kapp lii xew tey loolu mu seddaale ci aaya bi yàlla subhanahu wa taala wax ne yaa ayuha alladina amanu fu anfusakum wa ahlikum naara yéen ñi gëm moytul leen seen bopp moytul leen seen njaboot saxara kon yii yëpp waa ji feebar moo koy saxawee boppam waaye des na gannaaw bi nga xamee ne am na fukki tomb yi mu feer yi muy taxawee boppam moom mi feebar yegg na nag ci fu xam ne nit ñi léegi ñooy taxaw mooy lan mooy ci waxtu sukuraat waxtu yu mu nekk ci sukuraat foofu nit ñi ñooy taxaw ci di ko sax di ko sax baa ci seede kon li ko dalee ci tomb yii ma nekk jëm suuf ki nga xam ne moo fekkee waa ji nekk ci waajtaayu dee moom moo koy taxawee moo dalee ci fukki tomb fukkeelu tomb ak benn yooyu bokk na ci sako baati seede lu ma wax salaa wax de waxuma dégtal sax ak dégtal du benn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne laqinu mawtaakum la ilaha illa allah xadis boobu wax muslim saleen seen ñi nekk ci yoonu dee na ngeen leen sax laa ilaha illa allah ak wax yontu bi sallallahu alayhi wa sallam ji mu ne man kaana axiru kalaamihi laa ilaha illa allah inda almawt daxala aljannata yawman min addahr wa in asaabahu qabla dalika ma asaab yontu bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ku xam ne la mu mujj a wax ca ba muy faatu mooy laa ilaha illa allah kooku lu yàgg yàgg bisa ngi ñëw ci jamono dana dugg àljana doonte nag am na lu ko jot doonte am na lu ko jot balaa mooy dugg àljana maanaam xadis bi garanti wul ne ku mujj a wax laa ilaha illallah safara araam na ci moom waxul loolu dana dugg àljana la wax moo xam nag wool direct lay duggee àljana wala day am escalier yàlla ñu yàlla may wool direct àljana musal ñu ci escalier wala ñu dugg àljana lu xam ngeen escale bi di baatu say yi ñu wax sag yi ñuy wax laa ilaha illallah bokkul ak toog ci wetam naan laa ilaha illallah laa ilaha illallah pour waa ji na ko dégg roy ko déedéet dañ ko naan diw waxal laa ilaha illallah ngeen wute nag lu ñu bëri di interprété te moo ne li ferndeel lii ma wax mooy xadisu anas radiallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa seeti benn waay ci waa ansaar mu ngi feebar mu ñëw ne ko nijaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko nijaay waxal laa ilaha illallah waa ji ne ko ah moo ndax man sa nijaay laa wala sa papa bu ndaw la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko déet sama nijaay nga mu ne ko ndax laa ilaha illallah bii nga wax ma wax ndax sama yiw daf cee nekk yontu sa rasam ne ko waaw sa yiwan ci kon gis ngeen lii dégtal la wala sala sax nijaay waxal laa ilaha illallah mu ne man sa nijaay laa sax wala sa papa bu daw la mu ne sama nijaay bi mu ne ndax lii nga wax ne naa ko wax yiw sama yiw daf cee nekk mu ne waaw sa yiwan ci li koy duwut toog ci wetam naan laa ilaha illallah laa ilaha illallah amma li ngeen di dégg ci kuy faatu ñu jàng sóortu yaasin ci wetam loolu moom wérut loolu wérut xadis bi wax naan iqra'u sóorta yaasin ala mawtaakum xadis bi wérut nañ ko sadaal laa ilaha illallah naka noonu itam li ñuy wax naan jubale leen ko xibla jubale leen ko xibla loolu itam dalil ñëw ci nit ki bi muy faatu nu mu tëddee baax na jullit bi keroog bu yàlla soxnaa bakkanam benn minute dootu ko dundati moo xam ku baaxoon la moo xam ku bonoon la nit ki bi muy faatu xibla la jublu wala jubluwul xibla waaye nag xool na jëf yu baax la mujjee wala jëf yu bon kon na fexe ba li muy mujjee mooy laa ilaha illa allah loolu na mujj ci gémmiñ ñi nga xam ne fekkee nañ waaj mu ngi ci wàccaayu dee même bu nekkul woon ab jullit nañu ko tuddloo yàlla na wax laa ilaha illa allah loola mën na nekk sabab yàlla musal ko ci safar yonent bi salallahu alayhi wa sallam seeti na benn xale bu ko daan liggéeyal benn xale bi yahud yi anas mooy nekk li xadis bi xale bi dafa doon liggéey ci kër yonent bi salallahu alayhi wa sallam mu feebar bi mu feebaree yonent bi salallahu alayhi wa sallam seeti ko ci feebaram toog ci wetu boppam ne ko yow xale bi waxal laa ilaha illa allah daal di ko gaaral lislaam bi mu ko gaaralee tuub dugg ci lislaam xale bi yahudi bi xool papaam papa ji ne ko ati abal qaasim toppal baayu qaasim ci lim la wax kan mooy baayu qaasim yonentu sallallahu alayhi wa sallam xale bi daal di ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah génneewut yonent bi sallallahu alayhi wasallam génneewut foofa ba xale bi faatu bi mu génnee moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi naan maa ngi sant yàlla mi nga xam ne musal na xale bi ci safara ci sama sawra maa ngi sant yàlla mi nga xam ne musal na xale bi safara ci sama sawar kon même waa ji feebar du jullit ab yéeféer la nga seeti ko ci feebaram ngir gaaral ko lislaam ngir yaakaar ci yàlla dundam mujj ci lislaam mu dugg aljana loolu ay léegi nag waa ji faatu na jullit bi dee na am na ñu fa nekk ñooñu nekk fa am na lu leen war la leen war ba ca njëkk ci mooy suñu tomb fukkeel ak ñaar mooy su fekkee ne rooxo gi génn na nañu taxawee mbir yi bi njëkk mooy nañu gëmmal ay bëtam nañu gëmmal ay bëtam nañ ko ñaanal itam moom mi faat ngir xadis bi umm salama radiallahu anha nettali ne yonent bi salallahu alayhi wa sallam dafa dugg si ci abi salama bi mu faatoo fekk bët yaa ngi xulleeku yonent bi salallahu sallam daal di gëmmal bët yi daal di ne inna ruuxa ida qubida tabiahu lbasar rooxo suñ ko jëlee bët daf koy topp bi mu waxee loolu rek am ci waa kër gi ñu coowandoor ndax yéen ne kon Abu Salama faat na ñu coowandoor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne aha laa tad'u ala anfusikum illa bi xayr fa inna almalaika yu'minuuna ala ma taqulun na ngeen fexe ba bu leen ñaan ci seen bopp lu dul yiw de ndax malaaka yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne jéggalal Abi Salama te yàlla na nga yëkkati darajaam ca ña ñu jubal nii te it yàlla na nga ko wuutu ci gannaawam ci ñi fi des yàlla yàlla na nga ñu jéggal ñun ak moom yow borom bi dee yàlla na nga ko yaatalal bàmmeelam te itam yàlla na nga ko leeralal bàmmeel boobu gannaaw lii nit ki war nañu ko sàng sàngaay bu muur yaram bi yépp suturaal lu dul nag xanaa fekk mu nekk ku armal wala aj ku armal omra wala aj ki nga xam ne dafa nekk ci omra wala aj kooku moom du dagan ñu sàngaale boppam ak karamam ngir xadiisu ibnu abbas radiallahu anhuma ba mu wax ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam dafa am kenn ci saxaaba yi ci bi mu ajee ku gëlëmam daaneel mu samp loosam daal di faat yonente bi salallahu alayhi wa sallam ba muy wax nañ ko waajal daf ne nañ ko moytul parfum te itam bu ñu muur karamam ak boppam parce que ëllëg yowmal qiyaama dafay dekki fekk mu ngi labay kaw dafay dekk fekk muy labay kaw kon su fekkee ne ki faatu ku armal aj wala omra danañ muur yaram wi yëpp waaye ba mu des ba bekk na naka noonu war nañoo gaawee waajal ko génnee ko ngir robi ko gannaaw wér na ne dee ngir waxi yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu wax ci hadis bu Abu Hurayra nettali ne na ngeen gaawee jullit bi faatu na ngeen gaawee ki faatu ngir robi ji ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ndax benn ci yiw la jëm na ngeen ko gaawee mu dem ca yiw ba mu jëm ndax ku baax la wala fekk leneen la kon musiba la ci seen kaw na ngeen ko gaaw a teggi kon li ngeen ciy déggee jullit faatu ñu naan diw faatu na ñu ngi leen koy tàgge wante nag l'enterrement sera communiqué ultérieurement du la la ñu loolu du l'islam l'enterrement sera communiqué ultérieurement déedéet jullit kay comme wér na ne faatu na dañ koo war a dal di robi nañ ko gaaw naka noonu ñu rob ko itam ci dëkk bi mu faatu fi mu faatoo nañ ko xorob buñ ko toxal jëmalee ko ci beneen dëkk ndax loolu li njëkk mooy dafa dàpp wante ak gaawal gi gaawee gi yontu saa sallam wax buñ ko naree transporté gaawee mënatu caa am naka noonu suñu Aïcha radiallahu anha ba càmmeñam faatoo ci beneen dëkk ñu transporté ko indi ko Makka dafa ne man de li ma métti dong ci sa mbir mooy li ñu la toxal indi suleewuñ la fa nga faatu su fekkoon fekkee naa fa nga faatoo de doonuñ la toxal kon loolu wane na ni moo doon njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rob julit fa mu faatu ndax kat xamal ne dëkk boo ko mën a yóbbu ci àdduna nekku fa nit bu faatu lu ñu wax ñu ne diw génn na génn na àdduna kon ban dëkk nga ko yóbbooti foo ko mën a yóbbu nekku fa moom génn na àdduna kon suul ko fi mu faatu loolu moo tax imaamu Nawawi rahimahullah ci téeréem boobu ñuy wax al azkar ci page cent cinquante mu ngi fay wax ne nit ki su dénkaane woon bi muy dund ne bu ma faatoo na ngeen ma transporté yóbbu ma dëkk sàngam robi ma fa nee na boobu boobu dénkaane waruñu koo def boobu dénkaane waruñu koo def ndax te toxal gi ci mashab bu gën a wér mooy ne dafa xaraam li gën a wér ci waxi borom xam-xam yi mooy dafa xaraam mu ne loola mooy li nga xam ne ñi ëpp it ci ñiy corriger wax yu wér yi yu wérul yi ci diina li ëpp ci ñoom loolu la ñu saxal mu ne am na naam ñu ne dañ koo sibde waaye wax ji wér mooy transport teg yi yóbbu ko ci beneen dëkk bu bokk la bi mu faatoo loolu dafa aram naka noonu it war nañoo gaawee fay ay borom waa ji faatu su fekkee am na ay bor war nañ koy gaawee fay doonte li mu bàyyi ci alal yépp sax nag dafa yem ca bor ya su yeboo kon nañ ko fayee lépp ñi ñi waroon a doon bañ a doon dara ndaxte su fekkee ne bàyyiwut alal loolu dafay tege ci ñi nga xam ne ñoo war a doon ci li jaadu mooy ñoom ñu fayal ko bor yooyu lii nag mbokk yi danañ ci déggee benn mbir bu garaaw mooy suñ jamono bii surtout ñu bari ci ndaw yi ni ñu ñàkkalee solo mbirum bor ñu bari dañu jàpp ne bor daal moom fu la neex rek gàddu ti boo gàddoo itam keroog nga koy fàtte boo sàgg ne keroog ngay gën a fàtte gën a xalaat kan ko lebee woon ñu baree bari tey ñu ngi gis gën ak i bor te deehaale bor mbokk yi lu garaaw la li koy wane mooy xadis bii ci sunu kanam te albuxaari bi soloo ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne nafsul mumin muallaqa bi daynihi xatta yuqda anhu boru bakkanub julit rooxoog julit dañu koy wékk ci borom ba bañ koy fay bakkanub julit dañ koy wékk ci borom dañ koy confisqué ngir borom ngir bor bi waa ji amit ba keroog ñu koy fay kon bu ñu leb lu dul manta ñàkk bu ñu lebee itam nañ am yéene fay ko occasion ba ñu njëkk am ci lu ko fay nañ ko ko fayee su fekkee ne yàlla dogalul loola su yéene ju sell ci fay gi amaan na yàlla subhanahu wa taala jàpp na ñu lu ko fay suñu gannaaw waaye lu garaaw xam ngeen ne benn waay ñëw na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci benn jihaad mu ne yonent bi dama bëgg nga wax ma xare bii léegi suñ ma rayoon fan laa jëm yonent bi saa ne ko suñ la ci rayee fekk yaa ngi engagé joxe woo gannaaw dawloo say noonu kon aljana nga jëm waa ji daal di dox doxin wu jekk yonent bi saa ne ko eh kaay kaay mu ñëw mu ne ko loo waxoon nga rek mu ne dama ne xare bi suñ ma ci rayee fan laa jëm yonent bi saa ne ko suñ la ci rayee fekk yaa ngi engagé say noonu dawloo joxe gannaaw aljana nga jëm lu dul fekk yaa ngi yor bor jibril la ma ko wax léegi allahu akbar gis ngeen ne shahid ci yoonu yàlla far na mboolem bàkkaar yuy gàllankoor nit ci dugg aljana ba mu des bor manta faraale bor kon nañu moytu bor naka noonu bokk na ci ay mbir yu xam ne dagan na ci ñi teewee faatu waa ji ak ñu dul moom ñu taxaw ci mbir yooyu mooy lan bi ci njëkk muuri kanamam foon diggantey bëtam dagan na wàññiwu dara Abubakar ni Siddiq bi radiallahu anhu biñ ko waxee faatu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee dugg ci nee bi fekk ñu muur ko dafa muuri kanamam mu foon diggantey bëtam ne ko su fekkee dee gi yàlla deedu la dajaleel ñaari dee mukk waaye su fekkee dee gi yàlla bindoon ne danga ca jaar googa de moom dee nga ko ba pare boole kàddu yow ca teg radiallahu anhu kon loolu dagan na naka noonu jooy jooy laa wax de lu ma wax waxuma yuuxu de yuuxu moom dafa xaram yuuxu ku dee dafa xaram jooy moo dagan jooy mooy lan rongañ yu xellee xol bu fees rongañ yu tuuru loolu mën na am ba ñetti fan ba ñetti fan waaye waru ko romb ngir xadiisu suñu Aïsa radiallahu anha bi mu nekk ni ak xadiis Abdullah ibn Jaafar radiallahu anhuma moom it xam le ne Jaafar bi mu faatoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ëppal na waa këram diiru ñetti fan gannaaw gi la ñëw mu ne sama mbokk mi bu ko kenn jooyati gannaaw tey xam nga ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doomam boobu Ibrahim bi mu faatu moom itam jooy na bi ñu ko laajee lan la wax mu ne lii yërmande la ji yàlla def ci xoli jaamam yi yërmaate mu ne al aynu tadma wal qalbu yaxsan wala naqulu illa ma yurdi rabbana inna bi firaqika ya ibrahim la mahzun mu ne bët yi de danañ génne ronga mi xol bi itam dana am tiis waaye nag duñu wax lu dul lu gërëm loo suñu borom Ibrahima de suñu teqale koo yow suñu tiis la gis nga lii daga waaye tiis tiis lañ wax wala naqar yéen a ngi dégg toujours ci rajo yi diw ak diw ak diw ñoo am naqar ak tiis da leen tàggi diw sàngam tiis d'accord dagan na jullit am tiis tiis métti la ci biir xol amma naqar mooy ñàkk a dogal ñàkk a d'accord ci la yàlla dogal kooku jullit amu ci droit kon kenn ci ñun na moytoo bind tàgge di wax ne maa ngi am naqar ak tiis ci li yàlla dogal déedéet li yàlla dogal duñ ko naqar tiis na mën nañ ko ci am waaye naqar moom duñ ko ci am gërëm nañu dogal yàlla am na nag ay warugar yu tegee ci bokki jege ñaare ki par bokk na ci yooyu te mooy sunu tomb fukkeel ak ñett mooy warugar yi tegee bokki jege ñaare yi ci bi ñu yëgee ne diw faatu na loolu ñaari mbir la ñaari mbir moo leen ko bi ci njëkk mooy muñ ak gërëm dogalu yàlla ndax aaya yi dénkaane muñ ak xadis yi dénkaane muñ di dénkaane gërëm dogalu yàlla bari na lool jataay bi laaju ñu yaatal ci ndax thème bi du loolu waaye ñu xam ne muñ moom lu war la bokk na ci lu ñu mën a rotal ci benn xadis rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne yàlla subhanahu wa taala dafa ne maa li abdil mumin indi jaza ida qabadtu safiyahu min ahli dunya summa ihtasabahu illa aljanna sama jaam bi gëm su ma jëlee soppeem ci waa àdduna mu muñ ko amul pay bu ma ko dencal bu dul aljana gannaaw boo muñu nit du tax ki demoon dellu si boo muñee yaakaar aljana lu lay teree muñ muñal ndax yàlla tiyaaboon la dencal la aljana loolu benn la ñaareel bi war na itam ñu dellu ci yàlla boole koog ñaan dellu ci yàlla boole koog ñaan ngir aaya bi yàlla subhanahu wa taala di wax ne alladina ida asaabathum musibatun qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yàlla dafa ne wa bashir wa bashir saabirin alladina ida asaabathum musiba qaalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun béggalal muñkat yi nga ne yàlla muñkat yi ñooy ñan mu ne ñooy ñi nga xam ne bu leen musiba jotee danga naan ñun dee ci yàlla lañu yàllaa ñu moom te itam ci yàlla la ñuy dellu ñun de yàllaa ñu moom te it ci yàlla la ñuy dellu naka noonu bokk na ci la muy ñaan xadis bi umm salama radiallahu anha nettali te mu ngi ci saxiixu muslim mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne amul benn julit bu faatule mu wax ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun allahumma ajilni fi musibati waxluf li xayran minha ñun de yàllaa ñu moom ci yàlla la ñuy dellu yàlla na nga ñu tiyaabool ci sunu musiba wi te nga wuutalal ñu lu ko gën yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne kenn du ko wax ci musiba bu ko jot lu dul ne yàlla wuutalal na ko lu ko gën umu salama mu ne bi sama borom kër faatu abu salama ma fàttaliku wax bii ma xalaat saxaaba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kan laa ci mën a am ku gën aboo salama mu ne ma ne waaye comme yonent bi dénkaane na ko naa ko def mu ne ma dal di ko wax ba ma demee ba sama téy ji jeex sama idda jeex yonent bi sallallahu alayhi wa sallam labat ma pour boppam mu ne ma ne yonent bi man damaa boole sikkile man mag la damaa bëri doom ti damaa fii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waaw bu dee mag gi moom man maa la mag bu dee mag bi man maa la mag bu dee njaboot gi sa njaboot sama njaboot la bu dee fiir gi nag dinaa la ñaanal kon yàlla wuutalal na ko ku gën ki mu ñàkk wala wuutalu ko kon nag saa yi ñu musiba dee jotee bu ñu fàttee wax ñaan bi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun allahumma ajurni fi musibati waxluf li xayran minha mu am nag ay mbir yu xam ne dafa xaraam dafa xaraam ci mbokki ñi faatu ñu def ko fa min baabi aw laa ñeneen mooy la mooy ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam araamal na ci ñi deele ay mbir yu xam ne ceddo gi ñoo ko daan def te moonu ba léegi ceddo gaa ngi koy def jullit yi seen diina leew ci seen bopp itam ñu ngi koy def saa yu ñu deele loolu nag dafa war ci jullit bi mu xam ko ngir moytu ko yooyu bi ci jiit moom mooy yuuxu diw dee na mu ne wóoy déedéet dara ñaaral ba dóor ay lex ñetteel ba xotti sa yére di sànni wala di dindi sa kawar di ko tas ngir ku dee yooyu ay xadis yu bari yu wér ñëw nañu di wane tëpp yu mett yi nga xam ne yàlla nga ko dencal ki nga xam ne daf koy def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon na wax ne laysa minna man saqal juyuba laysa minna man daraba alqududa wa saqa aljuyuba wa daa bidawa aljahiliya bokkut ci ñun kuy dóor ay lexam ngir ku faat ngir musiba wala muy xotti ay baati mbubbam ngir musiba bu ko dal wala muy wax ay waxi ceddo yi way fu ñu jëm way ñàkk nañ way dootuñu baax rek way suñu àdduna yàqu na way ki ñu yoroon ku leen yoroon ko dul yàlla ku yor seen baax la waxi ceddo yooyu nañu ko may yonent bi salaa sallam yegg na ci ne moom ay màndarga yu xam ne daf ñuy wan ne kii yàlla may na ko mujj gu rafet yàlla may na ko mujj gu rafet yonent bi salaa alayhi wa sallam am na ay màndarga yu mu tudd yuy tegtale ni faatu ci yooyu màndarga kooku am na mujj gu rafet wallahi yàlla ñu ko yàlla may yàlla ñu ko yàlla may ci ngëñ la bokk na ci yooyu julli ba muy faatu la mu mujj a wax mooy ashhadu la ilaha illa allah mu mujj a wax loolu loolu màndarga mujj rafet ñaaral ba jullit bi faatu nga gis jëbi ñàkk mu faatu nga gis jëbi ñàkk loolu màndarga mujj rafet ñetteel bi jullit bi waxuma nit ki de jullit bi laa wax jullit bi faatu guddig aljuma wala ba cëgub aljuma guddig aljuma nag mooy ñu yendu alxames ba ngoon guddi gi jib aljuma mooy guddig aljuma jullit bi faatu guddig aljuma wala ba cëgub aljuma loolu ci màndargay mujj gu rafet la ñeenteel bi jullit bi shahid ci ëttub xare ëttub xeex fi sabilillah màndarga mujj gu rafet la juróomeel bi mooy jullit bi dee ci lab lab ci ndox dee yonent bi salaa sallam shahid la ko tuddee juróom benneel bi jullit bi dee ci lu màbb ci kawam bâtiment bi màbb ci kawam ci mine bi la duggoon mu màbb ak màbb gu màbb ci kawam loolu bokk na ci màndargaay mujj gu rafet naka noonu jullit bi dee ci lakkuk safara lekk safara jolli ci néeg bi ci kër mu dee ci loolu naka noonu jullit bi dee ci tuberculose tuberculose ñu wax de feebaru sëqat bu bon boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boole na ko ci ñi nga xam ne dañoo sahid naka noonu jigéen ju doon am doom faatu ci am doom ga kooku ci màndargaay muy rafet la bokk naka noonu juróom-ñeenteel bi kon bu ma ne màbb bi mooy juróom-benn lakk gi ci safara mooy juróom-ñaareel bi jigéen ji dee ci amul doom mooy juróom-ñeenteel bi juróom-ñeenteel bi mooy dee ci tuberculose fukkeel bi mooy jullit bi dee ci défendre diinaam wala défendre bakkanam wala défendre alal wala njabootam benn waay bu ñëw ne mukk dana jalgati ci benn ci yi ma wax mu taxaw ngir défendre loolu ba dee ca yooyu mbir màndarga lañu ci màndarga mujj gu rafet waaye ndax bu boobaa sañ nañoo doog ne diw mu nga aljana de dañu naan yàlla may na ko mujj gu rafet foofu lañ sañ jullit bi nag bi mu faatoo sañ nañuy tagg ay yu baaxam muy fukkeelu tomb ak juróom-ñaar mooy jullit yi nga xam ni ñu dëkku ñu dëkkoon ak waa ji lañ ñu ko xam lañu te it mbaax lañ xam ci ñoom ak xam-xam ñooñu bu ñu seedeele nit ki ak mbaax tagg ko ci ay yiw loolu man na koo waralal al mbooloo moomu nag la ci gën a néew mooy ñaari leen jëm ko waaye waxuma seede yi ngeen di gis tey de ñëw kii kay ku baax la woon ku mel nangam la woon ku mel nangam la woon fiya wér noo ne mu nga aljana te xamoo ci dara dée seede si ñuy wax ne mooy garanti waa ji aljana dafay nekk ay jullit yu dëggu yu dëkkoo nag moom xam ko te ñuy mboromu mbaax ak xam-xam seede waa ji ak mbaax ñooñu dee seen seede soosu war a ne aljana ci waaju du fàttu yàlla ñu yàlla war sagal mujj gu rafet bu xam ne dugg aljana te bañ a jaar safar moo cay topp ñu taxaw fii wa sallallahu sallam ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi